mbokk ñuy teewlu ci Sénégal 7 dalee nag jàmm ci jotaay ji ñu am mbégte di sekk ak euh, monsieur Demba jum di coordonnateur Pastef bu Médina monsieur Dioum ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay di euh, yi mhm. euh, ñu am mbégte di la dalal ci benn contexte bi nga xam ne ni fi nga jóge parce que Médina aussi sorewul plateau. gis nañu coow la fa am entre les marchands ambulants wala les tabliers ca Sandaga ñuy bañ ñu jële leen fa ñu joxoñ baaraamu tuuma la mairie nga xam ne Alioune Ndoye moo ko géré yi tout coow loolu noo ko gisee. waaw man coow loolu euh, man coow de mauvaise augure la parce que li ma xalaat mooy euh, xam nañu maire Plateau. Mm-hmm. mi ngi fa depuis lu yàgg mm-hmm. euh, mën nga wax ni opération yooyu mos ko def amul lu tax depuis ay années plus de presque sept ans huit ans mu nekk mairie plateau sul def opération yooyu te opération yooyu boo koy def aussi ku zone bu may Sandaga wala Petersen bu sens bi bu mel ni ville war nga dugg ak autorités yi sous préfectorale wala préfectorale yi ba nga am aussi avalu autorité door koo def ndax xam nga lu mat ay milliers de personnes pour man c'est une c'est un problème de sécurité publique jël leen leen débarqué noonu de façon arbitraire mm. parce que aussi su analyse mbedd bi c'est vrai que mbedd war nañ ko war nañ ko organiser war fu waay neex euh, am na opération boo koy def aussi war nga ci yóbbu ak nguur gi mm. luñ fàttalee am na lu xew a lu yàggul mm. am na lu xew a Colobane aussi yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen communes yi mais loolu yëpp man luñ ci gis mooy dafa mel ni une opération de sabotage yoo xam ne mairie yoo xam ni dañoo contre nguur gi ñoo ko jéem a def pour féewaluñu ak population mais nag loolu lu jàll ndax euh, ci barcham benn ci bëri ñoo xam ay ay ay patriote lañ ñu bëgg Sénégal lañ te xam ne nguur gi aussi bépp buy def opération mel noonu daan leen jéem waxtaan Euh, waxtaan ñoom averti leen xool lu ñuy def loolu daal laa gisee mbir mi. est-ce que boo nee sabotage la du benn raccourci bi nga xam ne ni day xaw a yomb parce que boo seetee euh, yu mel ni amoon na ca Kër Massar Sud par exemple fi nga xam ne ni maire Pastef moo fa nekk bi laal jaata mhm. Golf. Adija Mahécor et cetera loolu lépp amoon na fi te aussi am na benn circulaire bi nga xam ne nii wax nañ ko waxati ko tukkee ci ministère de l' intérieur et tout est ce que boo nee sabotage la est ce que du waxu politique rek. non du waxu politique ndax xam nga maire yooyu yëpp. Mhm. ci nekk aussi balaa ngay def opération dem nga wax daana ñoom mhm. apparemment li xew plateau nii gis nañ ko. Mhm. gis nañu nii ay xeex ay jaase te aussi un maire maire Dakar plateau nga xam ne c' est la plus grande commune. de la capitale Dakar. mu nekk un point stratégique boo demee bay def opération mel noonu loo bëri ay agent agent municipaux war nga jël attache préfecture moom euh, Alioune Ndoye saa yi ba daan def opération Médina ak Plateau man saa yi bi ñu opération dama ko daan gis gis préfecture ji bi jàll ci boppam indi opération lu tax bi pas defu ko donc am na loolu ci ginnaaw loolu la c'est des opérations politiques pour nous mettre en divergence contre avec les marchands ambulants loolu laa gis ci loolu noonu yeneen maire xëy na def nañ ko mais dañ ko def aussi ak petite ëppi comme ni nga wax jaaral ko ci procédure bu normal ba problème bi yow daa biñ ko defee ñoom muy Kër Massar Woloum muy Golf euh, Sud di ko ci problème yi mel noonu lu tax Sandaga te ko aussi ñëpp xam ni ñu c'est un point sensible d'ailleurs l'ancien maire de Dakar même Pape bi doon jéem na ko mu am problème donc dëkk bi fi mu toll nii nga xam dañoo jógee élection def apaisement lu mel noonu xam nañ ñëpp xam nañ lan moo waral Euh, marché am na ouverture mooy lan y' a un problème de chômage endémique au niveau des jeunes y' a aussi euh, le fait que ñu jógee ci régions yi euh, ñëw. indi ñëw Dakar pour aussi liggéey daan seen doole parce que lan la amuñu ay yu bëri ci région yi amuñu liggéey fañ dëkk loolu mu indi loolu loolu nag gouvernement bi ñu ciy sàkk solution mais nag c'est c'est des solutions yoo xam ne mun nga xam ne mën a à court terme mënoo ko am léegi c'est peut à moyen à long terme la peut rapidement chômage endémique des jeunes là commencé au réserve nànk-nànk euh, bu ñu waxee chômage xam ne problème bi nga xam ne nii la neexu la neexu la neexu la neexu la réglé mhm. mais aussi gis nañu mbeddu dakaar yi nu mu mel gis nañu mbeddu Dakar yi mhm. nu mu mel gis nañu nu ca tablier yi marchand ambulant yi mhm. occupé yi tout doon na image bi nga xam ne nii ñëpp daanaka d'accord nañ ne rafetul mais est-ce que jotul aussi euh, l'opposition par exemple le maire Alioune Ndoye ak yéen l'état ngeen toog waxtaan daal di régler cette situation une bonne fois pour tout balaa ku ne nekk di jokkar bi moroomam naan day saboteeg sabotewul non xam nga li ma wax léegi mooy xam nga affaire affaire bu xoolee ak majeure hmm. partie des marchands ambulants les jeunes venus des régions de l'intérieur mu hmm. nga xam ne ci bëri exode rural moo ko waral bu hmm. ñu nax suñu bopp problème chômage jeunes yi wala exode bi benn maire commune mënu ko régler donc c'est une politique d'ensemble ñu xam ne moo ko teg en place mu indi ay résultats d'ici deux ans trois ans loolu muy indi euh, résorbation résorption résorption wu chômage bi indi aussi bu ñu de gën a restructurer économique nga xam ne pôle régional ñuy créé am ku ci nekk dëkk na benn pôle régional bu ñu créé pôle économique boo xam dañ ko fa créé ba jeunes yi mën a jàngee foofu mën a liggéey foofu ba exode rural bi population peut-être Dakar bi foo stabiliser mooy waral mais fekkee nit ñi fañ dëkk que ce soit muy dans le sud dans le nord l'est yëpp mënuñu amee liggéey mënuñu amee fenn lu ñu sutloo ba ñëw ci capital parce que quatre-vingt pour cent économie bi mhm. c'est basé au niveau de la région de la la la région de Presqu'Île loolu du Dakar kese mbisaan mhm. mën nga wax ni capitale africaine yëpp di souffre di souffre elle souffre de même problème mhm. mooy lan chômage endémique bi nga xam ne boo xool économie ci bëri ci capital ba nekk yeneen région yi elles sont restées à elles-mêmes amuñu économie amuñu université bu baax amuñu santé bu baax amuñu ay industrie loolu nag foog ñu ko wax stablement comme ñu xaw a équilibré waat économie xaw santé bi xaw a équilibré waat aussi yeneen activités yi nga xam ne jeunes yi nekk ci yeneen région daañu fi mën a toog mën leen stabiliser kon loolu mooy solution définitive de façon structurelle boo xam ne dina tax ba jeunes doo dootu ñëw ku ci nekk rek boo amee 18 ans wala vingt temps xalaat ni maa ngi dem Dakar uti léegi bu dee raxas otul même bu dee jaay naamara sax yooyu fondamentalement foog ma am politique développement boo xam ne mooy tax loolu jóge fi mais loolu du dun benn bagget machie rek moo tax mu jóge fi noonu du yombee noonu. ku la ko wax rek lay nax maire Aliou Dia mënul xëy suba en 3 mois ak baguette magique ma yaakaar ne bu fa jëlee marchand boo leen fa jëlee tam dañuy ñëw man. bëri naa la comme ni nga waxee chaque jour di liggéey ville mais romb moom foofu noonu ci Petersen bi. Mhm. toog na ay weer li ma lu ma lu ma dund la. Mhm. teg fa hôtel teg fa ay agent tous les jours ñu nekk fa te terewul tous les jours marchand am nekk fa di xeex ak ñoom ba mënu coo dara kon lan moo waral mu xëy suba tey tey rek ne leen fay jógee toog mu bàyyi leen fa ay at teg fa étoile police teg fa agent te mënu ci ñoom dara parce que lan jeunes yooyu ñoo fa nekk pendant ay weeri weer mu jar leen seen bakkan ni ñi amuñu leneen lu surul foofu loolu nag waxtaan nga koy jëlee peut-être am comme li ni solution euh, boo xam ne gouvernement bi que muy ville Sandaga Petersen Colobane gël Tapée Pikine Guédiawaye Kër Massar yooyu yëpp mu nga xam ne solution d'ensemble mooy tax loolu jóge fi mais du benn maire rek moo mën a julee fii marchand bi la loolu lu fi yàgg la man mais dina ma dëkk place moo xam ne marché ci leen fa ma dëkk foofu mhm. la marchand ambulant njëkk am boo xoolee création la le le fait de création ci mbedd bi mun nga xam ne presque avenue Blaise ci Médina la commencé loolu nga wax lu fi yàgg la lu ko waral nag mooy lan chômage équilibre économique moo amul ci région bi nga xam ne exode rural commencé na euh, industrie yi nga même yi amoon ci yenn région commencé tëj boo jàng fa amul benn opportunité économique moo tax koo jàng wala boo màgg bay bi dematul loolu ndox dama amatul noonu maanaam ñi nga xam ni ñoo doon accompagner baykat nga bay ba kii affaire affaire affaire nga bay ba pare amoo fay la lu ko jar mais loolu moo waral chômage bi moo wax exodural bi jeune ku màgg daal la ñëw même bu fekkee ñëw da ngay boo demee ba raxas oto sax moo gën a bay sa tool loolu on a on a des questions à loolu nag gouvernement bi mi ngi ci sàkk ay solutions à travers programme euh, Diomaye président bi ñu def nii nag mais nag nekkul loo xam ne dañuy xëw rek 2 mois 3 mois rek mu ñëw ay yu ñu commencé la commencé nañu diagnostic bi def nañ diagnostic bi ñuy tëral programme bi bu ñu gouvernement bi. assemblée assemblée nationale bii am ni buñ ko décidé ba commencé teg politique yi incha allah rabbi d'ici deux ans trois ans daañu commencé gis fruit yi daañu commencé gis résultat bi nga xam ne nag dañu commencé résoudre nank nank nag chômage jeunes yi peut être créer opportunité aussi yeneen région ba ñoom ñu fa toog. fixé wu ñu nekk Dakar bu ñu bëggee ñibbi si ñibbi foofu mën a am yeneen opportunité pour am loolu mooy euh, vraie solution. Mm-hmm. en tout cas ñu leen ci xaar bu baax a baax. Mm-hmm. ngeen def seen euh, le président Diomaye. Mm-hmm. cent jours ñu koy wax. 100 premier jours yooyu lan nga ci lan nga ci jàngat. 100 premiers jours yi pour man def nañ ci lu bëri. Euh, gis nañ ni 100 premiers jours yi ci le président Diomaye Faye boo xoolee. à travers son premier ministre Ousmane Sonko. def un conseil interministériel préparer campagne agricole bi génn plus de cent milliards fay detu les opérateurs économiques yu fi nekkoon créé jënd ay sama euh, subventionné semence subventionné engrais bi loolu lépp mu dem te loo xam ni daan nañ gis baykat daan nañ commencé ba taw ba mu taw premier deuxième taw ñuy commencé ay problème engrais ren gis nañu gouvernement jël na ay devant am yàgg def loolu cent premiers jours préparé nañ ci euh, fête tabaski bi ren kenn jooyul xar le ministre de l'agriculture Mabouba Diagne def ci liggéey mucc ayib cent premiers jours yi euh, def nañ ci aussi préparé nañ ci inondation à travers le ministre Cheikh Diagne Dièye gis ngeen ni point sens yi nga am ci yenn région yëpp que muy Dakar que muy Diourbel Kaolack yëpp def na fa ay visite def nañ visite avant inondation préparer préparer wu parce que inondation xam nañu foog des solution structurelles mais nag préparer wu na def visite de terrain fi mu waree positionner ay ay ay ay ay équipe yëpp ñu dem positionner xool problème yi nga xam mën nañ ko résoudre à travers positionner ay pompe def nañ ko cent premiers jours yi boo xoolee def nañ ci un programme de réduction des denrées de première nécessité que muy diwlin bi que muy farine bi que muy sucre bi que muy aussi ceeb bi loolu lépp def nañ cent premiers jours aussi boo xool def na ci am solo muy la journée du dialogue du 28 mai nga xam ne ci su programme xam nañu justice daf ci am wàllu wëy rëy xam ne cent boobu noonu def nañ ko ci def ci journée dialogue ba conclusion yu génn teg ko ci table président Bassirou Diomaye Faye nga xam ne léegi moom mooy jël décision décision yi nga xam ne mun nañ ko appeler de façon rapide comme ni mu ko waxee keroog ci waxam dañ ko def yeneen nga xam peut-être dafa laaj ay moyens ñu programmer ko wax ni cent premiers jours aussi la Mecque bi ci la am le ministre des affaires étrangères ak le ministre des transport aussi El Malick Ndiaye organiser nañ ko ba gis nga tey ren ak am na te benn problème amul cent premiers jours yi boo xoolee le ministre aussi comme li nga xam ne infrastructure def na le l'état du toutes les infrastructures nga xam ne de tous les projets infrastructures yi nga xam ni moo am cent premiers jour yi gis nga le ministre de l'enseignement Abdourahmane Diouf war na une huit universités yi am Sénégal yëpp jëf la diagnostic problème yi am ci étudiants yi ci course yi problème yi am ci faculté yi waxtaan ak tous les recteurs ba jàng sa problème bi yi nga xam ne change yi nga xam ne dañ ko fi bàyyi mu arrêté doo ko jéem a def cent premiers jours yi gis ngeen le ministre Serigne Gueye Diop visite na projet yi projet pour région yi ñu am yëpp yu fi war a euh, créer ay industrie pour résorber chômage yëpp gis nañ ko mu xam cent premiers jours loolu lépp def mooy continuer lim ni xam naa na yàgg mais cent premiers jours def na lu gars yi dañ naan cent premiers jours def ñu lu bëri mais nañ ko comparer ak cent premiers jours Abdoulaye président Abdoulaye dañ ko comparer ak cent premiers jours président Macky Sall xam ne sans premier jour yi régime euh, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye def na bëree bëri par exemple euh, mhm. wax nga ci lu bëri par exemple wax nga ci wàllum inondation. fàtt naa fàtt naa wax naa ci aussi lu mooy rapport de corps yi nga xam ne président Macky Sall dañ def ay at bañ ko génne. le président Bassirou Diomaye Faye génnoon na ko ba pare lancé yeneen yu bees. Mhm. loolu laa nga xam ne ci justice bi. pour leer nga xam ne parce que justice bi fi ñu ko jëlee fi mu fi ñuy jël fa fi mu nekkoon dafa métti mhm. donc sans premier jury loolu laa lim rek bu ñu commencé am na yeneen yoo xam ne bind yoo xam ne mën nañ ko gën a waxtaan que soit la diplomatie que yeneen yu bëri yoo xam ne def nañ ko sans premier jury yoo xam kon xam nga sans premier jury kon mën nga xam ne kon yaatu na yaatuwul sans premier jury yi ma lim yëpp président Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement ak son premier ministre defar nañ ko mm. te am na yu ma limagul par exemple fi nga daanelee muy euh, publication rapport yooyu nga mm. xam ne le président de la république euh, mm. ci euh, première déclaration mu wax la ne daal nañu publier rapport yëpp mm-hmm. mais aussi tamit publier ay rapport ak reddition des comptes du benn ñu ñu épinglé ñu kenn ku ñu convoqué et cetera te loolu aussi tamit c'est une promesse électorale sénégalais yi doon leen seen xaar leen di xaar ba léegi wala da ngeen ah. dellu ginnaaw non dellu xam nga loolu boo xoolee le premier ministre euh, Ousmane Sonko wax na ko. Mhm. publié nañ rapport yi ñëpp gis nañ ko. Mhm. na rapport mais xam nga justice aussi dafa am yoon. am na conseil avec le premier ministre lan il faut peut-être ci ma gisee mooy conseil supérieur de la magistrature mu am ba ñu def changement yi ñu war a def yëpp après je pense door a enclenché poursuivre parce que aussi justice bi gis nañ fi ñu ko jëlee mhm. bala ñuy dem ci normalement euh, ubbi enquêtes yi woo gaay je pense que fokk justice aussi ñu prépare ko xool lu ñu ci war a def yëpp mooy réforme bi war a def ci justice je pense pour man loolu moo gën waruñu justice boo koy def aussi da nga teg lu wóor teg parce que nit ki il est pas question aussi nga ñëw condamné loo xam waru ko condamné donc war nga teg tous les toutes les toutes les toutes les pistes encore yi nga xam ni dañ fa juste dañ changement yi nga xam war nañ ko def ci changement wu justice bi def ko ba mat sëkk rek door a enclenché loolu mun nañ en attendant comme li nga xam ni publier rapport en attendant aussi lancer des corps de contrôle ñu def ay ci yenn agence yi nga xam at yi nga xam defuñ ko woon mais balaa loolu aussi justice man réforme bi ñu def nga maanaam journée du dialogue le 28 foo ko réforme les premières réformes ñu def ko ba pare door parce que gis nañ fi li amoon en 2000 maanaam lancer ay enquête tëj leen pendant deux ans après ñuy mujj acquitté leen loolu la ñuy bañ léegi mooy balaa ngay def dara dangay def dangay ngay justice ba mu normal nag door a nag def lancer poursuite mhm. euh, sans premier jour yi aussi am na ñaari activistes yi nga xam ne ni jamono ji ñu ngi nekk prison ñu leen di toppee seen kàddu nga xam ne ni ñàkk warma la jëmalee ci premier ministre mhm. loolu tamit eh, ci wàllum justice noo leen ko mën a gisee. ay jamono ay weer ci ginnaaw de bu amoon dañ doon wax ne Macky Sall dictateur laa ngi demee noonu. lan ay weer ci ginnaaw li changé mooy leer na ay weer ci ginnaaw. Mhm. ci kàddu dañ la jël yóbbu la lan fañ lañ laa daan yóbbu. Mhm. juge d'instruction. Mhm. gis nga ñi ñu jàpp ñëpp dañ leen juge en flagrant délit parce que amul détournement de procédure de justice. mooy def nga lu leen loo xam ni y' il y a pas de faire des enquêtes mais yóbbu nañ yóbbu nañ ci juge euh, correction mu ñu dem seen mu condamné ñu war a dem tëdd seen peine hmm. fekkoon ni dañ leen acquitté ñu ñibbi seen kër donc li daan am fii mooy lan da nga daan yëkkati bant sax wala nga wax loo xam ñan la ñu defal instruction six te amul benn preuve loolu moo changé mooy lool na mooy loolu na foofu la ñu jëm nga xam justice bi ñu teg ñu teg ci ay procédures leer nañ nag balaa comme li ma wax sànq balaa ñuy dem nag ubbi enquêtes yi euh, rapport d' enquête yi nga xam ne IGE ak yeneen corps de def nañ ko door ko ubbi nag yóbbu ko ci justice. sans premier jour yi wax nañ ko sànq. Hmm. le ministre Cheikh Tidiane Dièye nga xam ne ni moo yor wàllum inondation yi premier taw. Hmm. ñu gis Kaolack nu mu mel. Touba yi demee noonu. Hmm. yooyu tamit euh, moom lañ doon gisa ah. waaw mais euh, xam nga la xanaa sànq yi bu benn baguette magique rek. mooy en deux mois. travaux yoo xam ne peut-être dafa war a juree année travaux yoo xam peut-être dafa war a coûter ay centaines de milliards wala yoo xam problème yoo xam li ko résoudre c'est des dizaines de milliards ngi ñëw ne c'est démagogique ñëw ne mën nga ko faj en deux trois mois li nga mën mooy li ma wax sànq le ministre euh, Cheikh Diagne Ndiaye ñëw noo def le tour du Sénégal point sens yëpp mu gis ko xool ko is projet yi nga xam ne moom la gouvernement président lancé mu xool ko étudier ko gis yan même projet gis ngeen projet même biñ am na contrat bu bees yu ñu suñu am sax annulé na ko. Mhm. loolu mooy lan boo ñëwee ci ministère door toog benn da nga war a xam xam projet fi nekk problème yi fa nekk solution yi fa nekk nga xool est-ce que c'était adapté est aussi même si c'est adapté ko jox. dañ ko jox est-ce que ñu ngi ko doral duré leen normal normalement. Mhm. diagnostic boobu nag la ñuy def en attendant nag ñuy am solution am en attendant peut-être ñuy déroulé loolu noonu nag. mais il faut trouver des solution d'urgence solution d'urgence mooy lan. Mm-hmm. ñu préparer point yi nga xam ne mën nga fa def des solution urgentes nga def ko fa loolu le ministre je pense def ci semaine semaine bi passée. Mm-hmm. leneen li mooy njëkk yu ñu wàññi ñun ngeen boole ko ci cent euh, résultat positifs ou cent euh, premier jours yi mais gars yi nee nañ wàññi bi dafa ndaw lool. ñetti dërëm ak ay juróomi dërëm ak yi demee noonu loolu it. Euh, <laughs> xam nga loolu relative xam nga wàññi lu ndaw moom relative xam nga yow fu mu nii. <laughs> ah mën nga wax nii. cent franc mu na tur yow ma bañ a tuuri ci yow. ku mhm. nekk xëy na sa poche attan. xëy na kaa xam ne moom saa ba xëy suba jënd lu mat euh, vingt kilos. Mhm. war ci dundal daaram wala këram. Mhm. wala dix kilos cent franc yi boo ko xoolee ci vingt kilos deux mille franc la xëy na bu ko dajalee ci mois bi soixante mille donc xeebu ko. xëy na yow bu dee benn kilo nga xëy na vingt cinq franc <laughs> ngay nga dundalee sa ñam <laughs> wala xëy tuuti na ci yow mais am na ñoo xam tuuru <laughs> donc question de tuuti na wala rëy na c'est juste de la man lu relatif la mais Sénégalais dans la grande majeure partie fi ñu toll ñu bëri pour man xeebuñu cent franc xeebuñu vingt cinq franc yi moom la ñu xam moom la ñu wàññi ci benn kilo wala moom la ñu wala fukki dërëm xam moom la ñu wàññi ci dëwlin bi yu mel noonu ci wàllum souveraineté aussi parce que tamit euh, wàññi njëkk baax na mais mhm. aussi bay dundee loo xam ne ni ñu ngi koy produire ci dëkk bi mhm. foofu aussi taxawaay bi lan la war a doon parce que loolu tamit bokk na ci seen ci seen i promesse waaw xam nga dama ne cent premier jour xam nga un gouvernement mhm. boo xool dafa agir ci yu bëri boo ñëwee fekk un état da ngay am des solutions à court terme mooy wàññi bi waaye nga xam da nga dem gis gis gis structure prix yi ah. parce que loolu nga mën a parce que que muy euh, euh, farine bi mhm. que muy doolin bi su bëri dañ koy importe dañ koy importer mooy état bi li mu mën a agir mooy structure prix yi mhm. xool taxes yi xool transport bi mhm. ci yooyu la mën a wàññi mais c'est vrai à moyen à long terme mooy programme yi nga xam ne mooy programme de modernisation de l'agriculture sénégalaise mooy véritable source bi nga xam ne mooy tax ñun ñu am souveraineté mooy tax ñun ñu am bu fekkee dem nañ ba bay la majeure partie la ñu soxla mën a agir directement ci prix nga xam ne boobaa dañoo am peut pression mooy tax prix yi gën a wàcc mooy tax Sénégal yi gën a gis seen bopp ci li ñuy def nii mooy indi souveraineté alimentaire boobu nga wax loolu nag programme yoo xam ne ministre de l'agriculture mi ngi koy gérer est ce que doo leen adopté fast track rek bu président Macky Sall waxoon parce que loolu nëpp ay urgence la. <laughs> ah track fan la mujj bu leen rusa wax fast track. non bi lan la muy fast lan la woon dafa ne woon lan dafa supprimer premier ministre lan la mujj indiwaat premier ministre. <laughs> donc track mu la xam ne man li ma comme li wax sànq. nous pas de la de la <laughs> ñi nit ñun fii euh, le programme euh, du président Bassirou Diomaye Diakhar programme bi dëgg la waxee Sénégal Sénégal mënoo leen a ndax ëpp ñu leen xel dañ leen wax lu yënnu maana fi mu toll ci mu nga xam ne sax ci première année bi les à moyen terme nga xam ne peut-être dañuy laal ci structure mais solution structurelle de moyen à long terme yooyu yoo xam ne le programme yoo xam ne day jël du temps pour am résultat day jël deux ans trois ans loolu la ñu gëmloo Sénégal te pour man dëgg dëgg boobu la ñu wax Sénégal li ñu mën a en attendant on gère les problèmes yi ñu fekk urgente ay solution parce que xam nañ am yoo xam mënul xaar après nag dérouler programme bi nu ñu ko dérouler noonu ci agriculture noonu la ñu koy dérouler aussi ci industrialisation noonu la ñu koy dérouler aussi problème inondation noonu la ñu koy dérouler aussi problème transport euh, euh, ñu wax ci wàllum diplomatie aussi parce que Pastef bu mu nekkee dans l'opposition ñu bëri jàppoon nañ ne bu ñu faloo ñuy gën a jege par exemple mooy waa AES euh, kàddu yi nga xam ne nii le président premier ministre Ousmane Sonko daawoon na ko yëkkati di ko teg ci CEDEAO syndicat chef d'état kii demee noonu mais lu ñu gis après mooy le président Bassirou Diomaye Faye première visite bu mu def euh, en dehors de l'Afrique France la dem xaaruñu ko woon ci ñoom yaa ngi suivre les débats ci réseaux sociaux yi ak les panafricains yi tout ñu jàpp ne euh, le président Bassirou Diomaye Faye da leen war et tout loolu changement de direction la wala da ngeen koo basé ci lan exactement man euh, du changement de direction parce que gis nañ ñu euh, premier vice le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ngi ko def Mauritanie mun nga xam ni dafa de proximité mhm. Mauritanie mhm. Euh, Guinée Guinée Bissau euh, Côte d'Ivoire Ghana Nigéria Mali maanaam parce que bu fàtte ni ñun aussi li ëmboon CEDEAO yëpp nga xam ne ñooy sunu premier voisin ñoom la si la am benn rapport économique de voisin xam mënuñu mënuñu on subit notre géographie mënuñu dem saa ñun même aussi mënuñu dem saa ñun premier première diplomatie de proximité boobu la njëkk def France nag fu ko yóbbu du visite eh, du visite officielle dañ ko invité woon dans un. Euh, je pense que langage diplomatique bu demaale fa parce que tout à fait normal boo demee dans un pays nga jaar nga nuyuwaale le président ki fa nekk defaat une visite de de de courtoisie c'est tout simplement ça mais terewul normalement mais euh, que soit le président français ou bien le président euh, tous les autres présidents européens. Mm-hmm. que ce soit le président chinois ou bien le président japonais ou le président des euh, des États-Unis mais yëpp le président bertuniman tôt ou tard na fa def visite parce que on a des liens de coopération que ce soit la France que soit la Turquie que ce soit la Chine yooyu yëpp tôt ou tard il fera des visites de visites de visites de coopération loolu mën ta ñàkk parce que nu ñu amee relation ak no parce que on n'est plus dans un monde fermé lu ñu amee relation ak nos pays limitrophes noonu la ñu amee relation ak la France loolu mënuñu ko ignorer. loolu la ñu amee relation ak la Chine la Turquie et ainsi de donc c'est yoo xam ne duñ ko gis ci. entre un lien de subordination entre le Sénégal et la France mais c'est des vices de coopération te gis nañu aussi xam na sunu programme de souveraineté économique bi ñu am que soit la France soit la Turquie soit la Chine ci nekk on doit travailler mooy base militaire française bu ñu doon wax doom franc CFA yooyu yëpp ci seen discours. Euh, doon waaw loolu lépp xam nga ñu doon ne que ce soit le problème euh, de la CEDEAO ba wala. Mhm. franc CFA bi yëpp. Mhm. comme ni nga ko waxee ay étape la. nous comme ni ñu ko waxee su programme bi problème CFA bi. jouer ci panafrica panafricanisme jouer ak la CEDEAO projet de monnaie bi nga xam moom la am. Mhm. fekkee ne aboutir na. ñu ànd ak ñoom génne ci France ya fekkee ne aboutirul nag ci la Sénégal nag door a jël euh, propre chemin propre monnaie noonu parce que noonu la ñu bougé parce que on va être on va être panafricain panafricain loolu nag moo tax ñu privilégié CEDEAO bu ñaar nee foofu te nag ñu dooru yeneen mooy mm-hmm. mais noor kese la mais nag nekk loolu day një xëy suba rek déclenche am na aussi des mesures préventives yooyu jël préparer sa bopp balaa ngay dem ci loolu mm-hmm. euh, ñu wax aussi ci le tandem Euh, Ousmane Sonko Bassirou Diomaye fay mhm. euh, ce qui est inédit parce que ñëpp xam nañ ne euh, Sonko pesé na bu baax ci lu tax président Diomaye fay tey nekk fu mu nekk mhm. Sonko dellu doon premier ministre mhm. moom mi nga xam ne ni mooy le patron dans le parti donc c'est une situation assez inédite seen dem nan nga ko jàngatee ba la ñuy dugg dans le fond waaw xam comme par exemple ak li régime bi passé defoon mu nga wax nii le parti Pastef ne pouvait pas ne pouvait na pas avoir de candidat contexte bi nga xam ne moom la waral nga xam ne président Ousmane Sonko a été euh, je veux dire combattu farouchement par le président Macky Sall ak son régime bañ mu nekk candidature moo waral il fallait une candidature de substitution ci le président Ousmane Sonko xalaat ni président Bassirou Diomaye Faye est le candidat pour notre notre parti et notre coalition pour man euh, président Bachchan ni ñu ko tànnee comme ni ko président si da ko defee àndoon si da ko tànn pour des raisons objectives tànn ko aussi pour man sans aucune contestation au niveau du parti même au niveau de la coalition donc pour man c'est un bon tandem nga xam ne président Bassirou Diomaye Faye et le président le premier ministre Ousmane Sonko aussi doro doxal programme bi je pense que c'est un bon temps ñu ngi lay asam te gis nañ comme li ma lu ñu réaliser lu ñu commencé réaliser fii ci Sénégal tey pour man tout le parti est content de leur action mm-hmm. mais euh, am na ñu ne euh, le premier ministre seen benn adversaire sax un opposant mu ngi naan la c'est président sous tutelle ah, nga ni sa sa wujj moom ku meer ku meer ku meer <laughs> tamit am na na <laughs> sa wujj wujj xam bañ nga ne opposant <laughs> wujj ku muy sàng doo seet loolu moom bu mu la bett ba ko waaye ah, xam mënuñoo wax lu baax ci bu bu doon dañuy wax lu baax ci président Sonko wala le président Bassirou Diomaye Faye kon heure bii duñ duñ àgg fi ñu àgg sa wujj daal dañ ko jàppee noonu ko muy raxas doo set. est-ce que yombul trop parce que tamit gis nañ ne le premier ministre am na benn envergure bi nga xam ne ni premier ministre daanaka mosu koo am Sénégal. mais c'est tout à fait normal loolu xam nga mënuñu ko bañ mhm. jum sax le premier ministre mhm. moo dem sax ba léegi weesu Sénégal surtout fait normal bu lii amee. Mhm. ñu am observation yu mel noonu mais je pense que ku ne xam na. sa moroom liggéey bi mu liggéey ci projet ku ne xam na sa ku ne ku ci ne xam nga sa place ci projet bi donc pour man noonu la ko patriote noonu la ko Sénégal yi di comprendre xam ni circonstance moo waral moo waral euh, contexte bi mm-hmm. ah donc moo waa travailler te li ñuy travailler c'est pour le Sénégal je pense que ce duo là ce tandem là ils vont réussir ce projet parce que y a tout l'espoir de la jeunesse y a tout l'espoir du Sénégal qui est derrière eux le projet boobu tamit euh, ndaw ñi aussi di leen ci xaar bu baax a baax. Mhm. mais aussi récemment gis nañu aussi ma delluwaat ci ndaw ñi ñi song géej géej kii demee noonu. Mhm. ku ci mel ni am na ñu jóg ne vraiment le président jàpp Bassirou waroon na cee wax yéen yàbb yi wala yu demee noonu. waaw ba léegi kenn dégguñu ko ci. dégg ko ci comme li ma wax rek déchet wu nekk lu ñu déplorer mais xam nga euh, le projet de d'immigration des jeunes à mhm. travers les pirogues. c'est un phénomène boo xam ni mën nga xam ne depuis depuis avant 2012. Mhm. la fi am phénomène boo xam ne la pendant douze ans le régime du président Macky Sall n'a plus rien n'a n'a pu rien faire contre ça. Mhm. projet boo xam ni je veux dire projet yoo xam ne la tant que chômage jeunes yi fi Sénégal mi ngi fi bëri tant que jeunes yi même bu fekkee ne am nañ liggéey liggéey bi. taxul ñu mën a sutur lu ñu ko warale mm-hmm. taxul ñu mën a am avenir bu ñu ko bëggee ci Sénégal. Mm-hmm. loolu day compter te yemul sax mun nga xam ne Sénégal c'est devenu un lieu de débat non seulement pour les Sénégal. Mm-hmm. mais aussi pour les pays limitrophes noonu lay amee ay Guinée noonu lay amee ay Gambie noonu lay amee malin yeneen pays limitrophes dañuy ñëw di débat donc c'est un phénomène assez compliqué que nga xam ne du Sénégalais kese ñoo ci dem mais loolu comme li ma wax sànq c'est même chose que problème mu le marchand ambulant tant que solution. structurel yi nga xam teg nañ ko yi nga xam ne dañ porte seen fi d'ici deux ans trois ans ba économie sénégalaise ba nga xam ne jeunes yi bu paree jàng am liggéey jeunes yi ku ci nekk région ba nga juddoo nga mën fa jàng mën fa am opportunité économique tant que loolu amul problème yooyu day kon di am luñ liñ luñ luñ luñu lu ñu lu ñu ñu mën nag mooy gëm projet bi nag jéem koo dérouler ci deux ans lu mu gën a gaawee ba recommencer résoudre problème sénégalais ba tax loolu loolu mooy effectivement commencé wàññi cet exode là cette immigration clandestine à travers les pour naan loolu kese moo ko mën a wàññi. mais déroulé projet bi tamit dafa war a am fu mu war a jaar njëkki mooy hmm. taxaw ci kanamu assemblée nationale. ci kanamu député yi. comme hmm. premier ministre sénégalais yi nu ñu ko doon faral di defee. def hmm. déclaration de politique générale. dégg nañu la position du premier ministre nee nañu bu ñu jooyantiwul règlement intérieur bi dina ko defee xaw ma fan. furul assemblée nationale le 15 juillet prochain loolu ñu bëri jàpp ne c'est avancé un peu excessif quand man pour man il n'a il n'a même pas été pour man man li ma considéré. Mhm. mooy le premier ministre Ousmane Sonko il n'a pas fait sa déclaration de politique générale au niveau de cette assemblée. constitution bi moo wax. à travers son article je pense quatre cinq ni waroon def déclaration de politique générale. Mhm. mais. faut dire que cette assemblée là ne représente plus ne représente plus le peuple sénégalais pour man cette constitution là peuple baa leen fal. peuple bi ma ci yan contexte la leen fal peuple ba mu leen di fal. Mhm. ah boo xool lu ci bëri ah, pour man con je man nag mais man ci sama xalaat bopp dama gis ni article boobu c'est pour man c'est un article qui s'applique beaucoup plus en président boo xam ne assemblée assemblée nationale dafa fekk si. mel ni ko Macky Sall bi mu fi toogee assemblée bi il deux ans ni mu ko fekkee foofu xam yow pour protéger la démo la démocratie ñu leen a assemblée bu ko dus parce que yow da nga nekk installé wu ñu voté assemblée assemblée nationale am. donc c'est normal que ñu ne la deux ans waroo mais man dans la logique ah cette assemblée doit être dissoute deux ans yi ñu wax nii sax waruñ ko woon xaar pour man logiquement waruñ ko xaar parce que lan. pourtant loolu la yoon wax constitution. loolu la yoon wax mais dama lay wax dafa am absurdité fi toll nii bu dee loolu. supposons le premier ministre dem na def déclaration de prix général. motion de motion de soutien bi député yi rejeté ko. est-ce que le président Bachir Diomaye dafa war a jël ko mel ne Abdou Mbow def ko premier ministre. kon loolu moo logique parce que moom ñoo am ñoo am majorité donc président Bachir Diomaye doxaluñ ko pour mu fal un opposant premier ministre. président Bassirou Diomaye Faye dañ ko fal pour ma teg un premier ministre ku mel ni Ousmane Sonko wala ku mel ni bokk ci régime ci mouvance am pour mu doxal programme am te programme bi aussi c'est normal assemblée générale assemblée nationale da ko war a valider donc ce mooy lan instant bi nga am un nouveau président dafa war am une nouvelle assemblée boo xam ni dafa war représenter l'actuelle majorité wala bokk l'actuelle électorat wu Sénégalais yi ce qui représente vraiment euh, nu ngi wax ni sax euh, les les les les les désirs du du peuple sénégalais bu ko defee nag ñooñu ñoo ñooñu nag buñ bu ñu defee assemblée bu bees nag voté ñu door def déclaration générale voté euh, de vote banation mais instant bii nii nii mhm. li ma wax sànq rek assemblée bi nii supposons ñu rejeté def ñu rejeté motion de soutien bi est-ce que c'est logique ñu am un premier ministre actuellement opposant c'est pas logique amul c'est absurde donc pour man le président Bassirou Diomaye li mu war def mooy assemblée bi mois de juillet bi avant juillet bi bu mu amee la war def décret di suusur ko balaa septembre yu élection septembre lay am deux ans ah, non am septembre juillet lañ leen vatoon juillet parce que septembre lañ leen installé waaw ah, kañ lañ leen faloon juillet lañ leen fal kañ lay am cinq ans assemblée bi mhm. juillet 2000 boo ci wàññee 3 ans kañ lay nekk juillet 2000 2000 2024 donc lu tax ñu naan ñu naan septembre la war a am la war a am 2 ans juillet bii la ñu war am 2 parce que parce que bu ñu fa toggee 5 ans ba juillet 2027 euh, lañ ci am 5 ans lañ fi am 5 ans donc fi mu toll nii. juillet bi nii nii. pour man warul am benn layam la le président Bassirou Diomaye Faye dafa jël décret du jour cette assemblée là ñu dem élection législative au mois de septembre au maximum def une nouvelle majorité. le président premier ministre Ousmane Sonko def sa déclaration déclaration de politique générale loolu moo logique. pour man li ñuy wax ni amul benn logique. devant une assemblée acquise à sa cause peut-être ñu naan. c'est le Sénégal qui décide dafa dafa ragal. assemblée dafa ragal dem noo la la ma fi mu toll nii man loolu sax pour man c'est une absurdité. Mhm. actuellement à l'état actuel. du règlement interne de de mhm. le premier ministre bu demoon def déclaration générale. ci ban article la ñu sukkandiku pour def motion de euh, voter motion de soutien amul ils le connaissent pas donc normal kon amul mu ci ragal même bu demoon def sax bu mu ko neexee du reconnaître motion de soutien parce que bokkul ci règlement intérieur bi donc y a plus de logique amul logique donc la logique pour man li gën a simple mooy ah, mois de juillet bi le président Bassirou Diomaye Faye dissout cette assemblée ñu dem élection am nouvelle majorité le premier ministre nag door def sa déclaration de politique générale parce que déclaration de politique générale c'est une c'est déclaration bu engager lu gouvernement sur des années te loolu lan mooy lan déroule le programme naka la des opposants yoo xam à ton régime voulaient valider cette ce programme mënul nekk c'est pas logique c'est pas logique comme li mu la wax sànq rek fekkoon ñoom on va prendre Abdou Mbow pour le faire premier ministre c' pas logique. Sénégal yi faluñu ñu fal Abdou Mbow premier ministre. wala mu reconduire le même premier ministre rek. non non non non bu bu waree defa kooku boo raatee defaat moo léegi ñu fa waat ñu warat ñu ah, bañ a. Ah, euh, pour di fal falaat. donc li logique comme loolu kon xam ni kon loolu c' est pas logique li logique mooy. dès le mois de juillet le président Bassirou Diomaye Faye doit faire mm-hmm. décret pour dissoudre cette assemblée qui kàddu gu mujj gi. kàddu bi xanaa misaan di la remercier bu baax di kontaan ci invitation bi di remercier aussi waa Sénégal 7 di nuyu aussi ñëpp di nuyu aussi prof di aussi euh, tous nos patriotes de la Médina. di leen nuyu baax waaw merci beaucoup. jërëjëf jërëjëf may fàttali ne dañ doon euh, dalal tey Demba jum coordonnateur du PASTEF au niveau de la Médina di leen gërëm di leen sant ci teewlu gi di gërëm euh, tuuti di leen dig daje beneen yoon ci beneen jotaay jërë ngeen jëf